oh d' accord euh, sëñ sëñ Modou donc euh, mel na ne am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko euh, ñu wàcc ci li nga xamante ne moo de waxtaan wi salaamaaleykum. sëñ Modou ñu ngi jaar mel na ne kooku jàppandiwul donc sëñ Modou très rapidement rek nga ñëwal ñu ci li nga xamante ne bi moom moo di kii woote woon tout à l'heure li mu wax. Hmm. mu ne président Ousmane Sonko dimension bi nga xamante ne bii. moom lay réglé ay problème am waaye moom lay réglé moom lay réglé problème bu Sénégal hmm. la bëgg ku ko ci defal li nga xamante ne bi moom moo di benn analyse bu pertinente comme ça moom mu mën a comprendre au moins hmm. mais nga ñëw ci rek parce que mel na ni li ñu dese ci heure bëreetul hmm. waaw maa ngi jéglu euh, xam naa comme ni nga ko waxee loolu daal si mooy li ma waxaatoon léegi Ousmane ma li mu réglé problème mooy fexe na daa am na am na discours discours mooy su waxee ñu dégg d'accord loolu rek la gis nga mooy Eh, gis nga mën a wax baax na lool. Mhm. waaye boo waxee ñu dégg la ma ko solo. d'accord Ousmane Sonko discours am mi ngi jàll. Mhm. politicien dafa am solo ci moom lool discours. d'accord te Sonko discours am mi ngi jàll. Mhm. Sonko bala xam ne nit ñi dañ koy wax da ngay gis ñu koy perturbé lu bëree bëri wax ji parce que day wax ca baxal ko. d'accord <laughs> léeg-léeg ko jàgg mu saxal gars yi na ko jëral <laughs> ko dégluwul nag nga xam ne nag nga xam ne nag mi mi mi Sonko discours am. yow mbokk mi di laaj loolu discours bi la. Mhm. discours am moo jàll. d'accord mooy daa gëmloo Sénégalais yi nàmpaloo leen loo xam ne fi mu ne nii. Mhm. mën naa ne loolu lañuy ñuy gal. d'accord mooy. Mhm. war na leen ni réew mën naa baax. te waneegul na ay aussi yu wane ne réew mën naa baax. am na. parce que bi ñu fi ñëwee ba léegi actes yi ñu yëpp amul lenn acte boo xam ne xam ne kat ñii dañoo nekk en faveur ci seen bopp. nekk ci faveur Sénégalais yi boo ko tàmbalee ca mbirum. yu bëree bëri yoo xam ne amoon na fi. Mhm. surtout commencé nañ koo dindi. Mhm. bëri na ci bëri na ci am na commencé wàññi. boor affaire yu bëree bëri bëri ci accord de lu affaire maanaam yu bëri yoo xam ne. Mhm. nekkoon na fi yoo xam ne jot nañ koo def. bi ñu ñëwee da ngay gis sur le plan affaire affaire affaire gouvernement affaire ministre yi. malgré président naa wàññi dama yàgg mu yokk. mais ba fii gisaguñ lu may vingt cinq ministres cinq secrétaires d'État au total trente la. d'accord gis nañ aussi tamit falu yëg sa bopp mbaay gi. dañ na Sonko itam aussi tamit dafa fonk njabootam. d'accord ci saa yu xolam tàngee rek. Mhm. saa yu seen bët doon xonkee rek. Mhm. ñu gis ko xoolal ci li xewoon ci Saint-Louis. Mhm. foofu gisatul gisatul joomaay gisatul kenn ak njabootam la gis. d'accord mel na liñ ko def li def moom lañ ko def. te jéem na ko rek sans sa tour mu waxee ni mu ci waxee. ñi nga xam ne dañoo amoon ay dañoo amoon ndeysaan maa ngi leen di suñu borom yàlla yërëm leen. ku mën na sëñ Mbàkke Caam ak Modou Tall mi foofu far fii Touba. Mhm. gis nga daf koo jaral mu déplacé wu ñëw ñëw ñëw seet si leen ndeysaan seet si leen bàyyi leen xel taxawu leen jël taxaw jëm mais aussi tamit parce que dañoo mën seen ay xam nga ne ñi amoon problème ci événement marché ba léegi malgré parce que ñu ngi ñu eh, opposition mais dañ leen di taxaw bu tabaski jotee ñu dimbali seen ay njaboot mhm. jëlee enveloppe di leen jox mhm. di leen faj am na ñoo xam ne yóbbu nañ leen sax bitim réew même à Maroc ñu faj leen politicien bu njëkkoon yow da nga daan fexe rek jiba di maanaam jariñoo saw askan mhm. falu fàttali mhm. mais ñoom falu nañ aussi ñu leen di bàyyi xel moo tax nag loolu tamit tey jii bu ñu taxawoon ne dañoo bëgg un milliard mhm. balaa yàgg ñi di yëkkati ko jox leen discours daal bu mbokk ñi bëgg xam d'accord Ousmane Sonko jàppal li mu am lépp mooy balaa ngaa wax na fekk boo waxee mu am njariñ yàlla may na ko su bëggee su waxee discours am jàll loo tax preuve tey jii bu doon wax tey nga gis mu nekk ay presque cent mille vies

Sonko discours am dafa àgg Afrique boo xoolee Afrique sax amuñu ne Sonko sax xam nga waxoon naa ne la képp kuy Sonko Sonkoru. Mhm. jikkoom moo leen di si sama sara commencé di yenn yenn yenn yenn kii bu jam nit ñu bëree bay di ko topp mbooloo mi bëri. Mhm. mu mujjee si sama sara daa fay complètement parce que la ko fay mooy Ousmane Sonko xam nga si sama sara moom dundul dara. Mhm. lu ndaw la dund daal di seede bàyyi. ñëw. ak bakkan yi faatu yëpp ñëw teele dem ànd nekk premier ministre Ousmane Sonko xool dem na sax ba ñu bari kaa dem dem na ba sax mu ne dañ koo def denn affaire boo xam ne dañ ko bëggoon a faat. Mhm, dem na ba Sonko lu mu dundul ci kaw su mhm, en tant que appareil d'État mhm. sur le plan mais mais ma xam ne yow pouvoir ni mu amee maanaam presse ni mu amee doole. nga xam ne presse bi ëpp doole. day gis ñu koy chargé. état bi jël li mu am lépp. teg ko ci kaw moom seule personne mu résisté moo tax waaye nag koo gis muy sonkoo sonkolu mhm. xamal ne jikko jaar bi c'est pareil ndeysaan bu doxee tuuti rek si jikko ji xam ne kii du sonk <laughs> ci ci ci acte am solo yooyu li nga xamante ne bi depuis tout à l'heure yaa nga koy indiqué mhm. euh, actuellement Sonko mën nañoo wax ne euh, moo nekkoon tête de liste bu bu bu bu coalition Pastef euh, instant yi nii nii ñii ni ngi naan dafay jóge prémature dem fi nga xamante ne bi moo di assemblée nationale ak action gouvernementale yi nga xamante ne bi expérience bi nga xamante ne bi commencé woon na ko am ci euh, bi ñu ko tabbee premier ministre ak cest dire njublang yu baree bëri yi nga xamante ne bi li jënti na ko fi te ji président Ousmane Sonko il est euh, mu nekkoon tête de liste ñu bëri ñu ngi naan profil nga xamante ne bi moom la ñu soxla assemblée nationale pour ñu mu nekkal président assemblée nationale président Ousmane Sonko donc moo ko war a mën a doon ndax jàpp nga ne président Ousmane Sonko dafay jóge primature dem nekk président assemblée nationale waaw question boobu nag bu xaw a waar la ndax Sonko da nga naan assemblée la gëne mhm. waaye tam nga naan primature la gëne am mhm. am ku nekk ligne bi waaw mel na ni eh, ma doon bañ a dagg waxtaan bi eh, salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar yaa ngi en direct sur euh, Mouhalim Info Mouhalim TV tur bi ak naka la sëñ Fallou Bamba Dia la sëñ Khadim macha allah si Fallou waa ah, Bamba Dieng yow moom yow moom yow moom yow moom tawarkalla sama waay nga. ne ma def ay analyse yu am solo. macha allah. <laughs> ne ko lu ma tey si na ma mais mais bala ngay ñëw si suñ Modou loolu tey xëy si tey mu xalim. lu <laughs> saa yi moom yow ko si sonnoo. ñun ñëpp dañoo sonn ñun ñëpp a sonn. moom ñun a galéré. léegi démb dama sonn. d'accord <laughs> léegi ndax da nga mën ay xalaat jëmee ci li nga xamante ne bi moom moo di ah, waxtaan wi. waay bu ko defee léegi xalaat euh, euh, li nga xam ne man gis naa ko ci élection yi jàll. Euh, muy coalition yi. am nay coalition yoo xam ne moom. am na ñoo xam ne gagné nañ ci mais am na ñoo xam ne perte nañ ci. d'accord dalee ko ci Pire ak Anta Babacar Ngom. boo xoolee ci coalition boobu noonu. Mhm. Pire daf ci daf ci daf ci perte bu baax a baax a baax a baax. muy la coalition Sàmm sa kàddu. a sa kàddu mooy nga xam ne Pire. Euh, doole bi mu am. ci wàllum électorat. ñi mu àndal amul ko am doole bu mel noonu. Mhm, surtout mais boo ko xoolee ci euh, positionnement yi. vraiment daf ci daf ci daf perte bu baax a baax a baax a baax. d'accord ndax euh, président Pape Djibril Fall. Anta Babacar Ngom. Mhm. ci analyse boo boo boo boo boo xoolee buñ demaloon seen bopp. mais Anta député la Anta kay perte. ñoom kenn ci ñoom. war sa mën a amal boppam benn député. mais mais mais Anta Babacar Ngom pertul actuellement député la. ah oui député la coalition moom moom moo ci gën a gagné parce que euh, ku ku nekk tête de liste moom. Ah ah. Euh, moom mooy force moom mooy doon deuxième ndax parité. d' accord. ndax parité beneen ba muy Pape Djibril. Ah euh, Pape Djibril bu par rapport ak 2022. Mm-hmm. parce que 2022 fekk na jeunes yi di ko bàyyi xel. d' accord discours bi nga xam ne moom la doon tenir. Mm-hmm. ñu koy bàyyi xel ci ci ci télé yi dëgg gi nga xam ne moom lañ ko xamee woon. d'accord waaye xam ne gis nañ ko ci moom jamono mm-hmm. ne day wax di wedd. moom Pape moom Pape Djibril Fall. wa wax waxet ji bëri lool lool lool lool ci moom. d'accord. Euh, deuxièmement bi muy li nga xam ne am na xew na fii ci moom. loolu mm-hmm. yaakaar naa bettul kenn. Mm-hmm. Euh, ndax euh, waa Touba moom ku leen yàgg yàgg yàgg si yàgg leen topp. xam ne ci élection ñoom kuñ xas ba topp rek topp nañ la. très bien. waaw jamono yi régime PDS. bi fi PDS nekkee. Mhm. gis nga ne euh, Touba moom PDS daf fi yàgg gañe. d'accord mais euh, régime bi fi nekkoon moom euh, musul musul am musul am doole électorat ci Touba. d'accord. loolu firnde firnde firnde ñëw na ci en 2019. d'accord ginnaaw bi ñu jugee ci 2019 gis ngeen ko élection yi jàll. macha allah. muy muy muy waaw. bisimilah waaye Sëñ Fallou lan mooy ëllëgu politique wu. Euh, ñi la nga xamante ne bii ñu ñu ràññee la ay leader lañu ci euh, coalition boobu la di sàmm sa kàddu ku ci mel ne Pape Djibril Fall Anta Babacar Ngom ñi nga xamante ne bii ay ndaw la ñuy doog a jóg ana lan mooy seen ëllëgu politique. non euh, ëllëgu politique moom amaguñ ko. d'accord. ci politique moom jamono jii nii nii ki ma la mën a mën a wax ne. Mhm. moom gis nañ ci moom avenir politique. Mhm. mooy mooy mooy mooy mooy Amadou Ba. ndax ci ci élection yi la doon natt dooleem. d'accord. Amadou Ba ci élection yii la doon natt dooleem. macha allah dina mag la. Mhm. mais musul demal musul demal boppam. d' accord élection yi nag ci la doon natt natt dooleem. Mhm. waaye position a nekk position bam nekkoon. Mhm. ba tey mën nañ jàpp ne Amadou Ba jugee fa. dëgg ñu ko doon joxe d' accord ne Amadou Ba la. yow daal da nga jàpp ne président Amadou Ba bu augmenté d'effort donc mën na am lu bëree bëri ci. Euh, politique mën d' merci beaucoup Sëñ Fallou. merci beaucoup sëñ jox naa demande explication joxoo ko lu baax de li ma jox leerul. Ah. <laughs> jërëjëf donc euh, ñu jël euh, Eh, Abdou Diakhaté Abdou Diakhaté maa lay nuyu di la ziar. Euh, maa ngi an bu baax. Eh, yaa ngi en direct sur euh, Mouhalim Info donc euh, ñu doon waxtaanee li nga xamante ne bii moom moo di résultat ak. Abdou Abdou Diakhaté pôle communication Pastef Touba. d' accord Abdou Diakhaté pôle communication donc ñu waxtaanee li nga xamante ne bii moom moo di résultat yi élection législative yi nga xamante ne bii moom la ñu amal démb ana wan jàngat nga ci def ginnaaw bi résultat yi commencé rot. maa ngi siyaare waa Mouhalim Info yëpp. Dubarkalla. ngeen doon ziar. bu baax a baax. a xam naa ne. dañoo croisé fu bëree bëri. waaw macha allah mu ngi koy daje nañu fu bëree bëri. di ziare waa Pastef Touba aussi. ci mhm. bi nga xam ne ñun ñëpp daj nañ ko ci élection bi. waaye di jaajëfal aussi askanu Touba. Mhm. ak Mbacké. d'accord. waaye sur les seize communes. Mhm. Euh, quinze communes yëpp. Mhm. yëpp moo ko gagné aussi. d'accord. ci département bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. Mhm. ne résultat élection yi moom. Mhm. ñu bett ñu. d'accord. ndax ñun yàgg nañ ci terrain bi. yàgg nañ liggéey ci loo xam ne xamoon nañ ñu teg suñu loxo. très bien. loolu rek ci bett mooy. politiciens yi ñu tuddee ay politiciens authentiques. dafa mel ne Sénégalais yi dañu leen a d'accord. naan population bi dañoo nekk devant que ñoom. te hmm. tey boo xoolee population yi majorité wala bu ñuy wax ñor gi ñu am. Hmm. boo xoolee bu ñu ci élection yi wane nañ ko bu baax a baax a baax maa ngi topp seen laay sànq ba léegi maa li moom wax ci lu am solo. macha allah euh, ñor gi nga xam ne sénégalais yi wane nañ ko tey boo ñëwee tey ci département bi ñu nekk. Hmm. nga xam ne dañu ne. nit ñi jànguñu nit ñi xamuñu dara dañ leen di yóbbaale. d'accord nga xam ne durant dañ naan. sur euh, les quarante et pour ñu xàmmee liste Pastef sax dafa jafe. Euh, boo ñëwoon tey ci table bi nit ñi war a voté nga xam ne sur le quarante et un liste Pastef trente et unième la jël. Hmm. dañuy rangé na liste yi teg ci ginnaaw nga gis maire gën a màgget wala paa bu gën a màgget bu jugee këram war a def choix am bu ñëwee dafay def choix am directement. Hmm. te dara du ko teree def choix am. loolu politiciens yi war nañoo jox respect population yi. d'accord war nañoo jox cër population bi war na nañoo xam ne population sénégalaise bi. Hmm. kenn dootu leen jàngal voté kenn dootu leen jàngal fal kenn dootu leen jàngal xool. ñàkk a jox respect population bi ak ñàkk leen a dégg. Mhm. moo waral élection yu démb. macha allah ndax président a la République soo nekk finance ministre Bassirou Diomaye Diakhar Faye li tax mu tas assemblée nationale. Mhm. bu fekkoon ne politiciens yi ñu ngi déglu population bi. Mhm. tey ensemble bi kenn du ko tas. ndax choix wu politiciens yi mooy lan. mooy le projet de Pastef. mooy choix wu peuple Sénégal. d'accord def nañ ko élection yi passé jox ñu cinquante quatre pour cent. ñu nekk di naan naan naan dañ taxat. Euh, xeex bee tax mu nit ñi lu ñu nag élection bi. Mhm. kenn mënu cee natt kenn nag élection et cetera et cetera et cetera. d'accord tey su ma wax ak yow nii su fekkee ne li ma jot a jot ci ay information ci département Mbacké bii rek ñu nekk. Mhm. a quatre-vingt-quatre pour cent. Mhm. Pastef la ñu wote. fii ci département fii ci département Mbacké. xam naa bu ñu ko méngalee ak président Seck. d'accord. donte ñun quatre vingt dix neuf pour cent wala quatre vingt quinze pour cent lañ soxla woon. Mhm. te boo jëlee élection bi ñu génn. Mhm. à soixante dix soixante quinze pour cent lañ ñu voté lool. d' accord actuellement ñu quatre vingt quatre pour cent ba bi kon dafa yéeg. donc mën nga xam ne taux bi yéeg war am respect. respect bi ñu war am ci population yi mooy. d' xam ne population sénégalaise yi ñu nekk tey. d' accord ñoom bi ñu mise ni mhm. sa antenne ma depuis 2014 ñu créé Pastef. 2015 2016 2017 2018 2019 ba 2020. 2021 mhm. Pastef ci débat bi lañ ko xam. ci parti boo xam ne aussi li gënoon a garaaw mooy. Mhm. Ousmane Sonko bi ñu tegee projet ba daf doon woo nit ñi ci ay kañat. woo nit ñi ci ay cotisation mhm. woo nit ñi ci ay jaay carte. Pastef nekk devant tous les partis. ay nit ñoo xam ne dañuy jël seen alal di ko def ci parti bi. jël seen doole di ko def ci parti bi. jël seen xam-xam aussi di ko def ci parti bi. d'accord. léegi bi ñu ñëwee ba deux mille vingt et un. Mhm. Ousmane Sonko bi mu amee problème ak Adji Sarr Macky Sall ba ci jaarale pour faagaagal ko moom mu taxaw di résister ñu bari dañu jàpp ne xeex boobu noonu tey wala ñu jàpp ne tey ma Ousmane Sonko li ko may li mu am mooy résister bu mu résister ci Macky Sall wala xeex bu mu doon xeexal Macky Sall déedéet dañu fàtte fi Pastef jugee. projet la yor jaay ko population sénégalaise bi population bi dañu gis seen bopp ci projet bi. d'accord Islam Xalim bi ko wax léegi la preuve. Mhm. boo jëlee diaspora bi. Mhm. mu ne diaspora bi nag Europe a Amérique fépp laa ci boole. jàpp naa ne fi ñu ci gañewul bariwul. xataa mm. naa ci jeexu kon jàpp naa ne jënd population sénégalaise bi xam ñoom gën a jàpp xam nga maa ngi fàttaliku élection élection présidentielle deux d'accord lan lañ ñu doon wax. Mm-hmm. dañ ñu doon wax ne quinze pour cent yi mooy mm-hmm. le quinze pour cent des li ñu jàpp ne xam ne ay intellectuels lañ quinze pour cent lañ téeméer buy jël fukki nit ak juróom ñoo ci jàng ñu jàng ñoo woteel Pastef eh, dem si yàlla jibalay tika amoon na ko da ngeen di da ngeen <laughs> diw amoon na ko diw amoon na ko mais bu ma nee ak les wahabis aussi les wahabis ñaar ñu leen woteel les wahabis euh, baal ma ma àggale élection locale uh-huh. président Ousmane Sonko jël localité yi bare bare bare jox ko ay maire d'accord boole ci tey ki doon wax ne moo borom Dakar mhm. nga xam ne seen parti deewoon na <laughs> mënu woon gañee ba leaderam Soham Wardini la la la la choisiroon mhm. Ousmane Sonko weñ loxoom teg fa tey Barthélémy Dias loolu lépp ñu fàtte ko élection législative ñëw président Macky yàq listu euh, listu titulaire bu président Ousmane Sonko mu jël listu suppléant am quatre-vingt-quatre députés wala quatre-vingts élection présidentielle ñëw ñu ne ko doo nekk candidat mu samp son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye jox réew mi. d'accord ñu ne ko sénégalais yi bàyyi nañ la parce que six mois yi defoo fi a six mois yi réew mi daa dëgër da ngaa yàq mi li nga doon wax nit ñi mënoo ko amoo projet et wax wax wax wax ba daaneel sénégalais yi ñëw joxaat ko majorité boo xam ne ca Senghor lañ ko gëj gisee bu fekkee mas naa am sur les quarante sept quarante trois wala quarante deux département yëpp pour l'instant leer nañu ne Pastef gañ na ko donc donc xam ngeen bu baax a baax li nga xamante ne bi moom moo leen di xaar ndax yaakaar naa ne dégg ngeen message bi nga xamante ne bi askan wi nañ leen ko avant may ñëw ci sa question bi. d'accord ba ci observateurs yi nga xam ne ñu nekk ci télé yi ak rajo yi nga xam ne diabolisé lañ ci nekk. élection bi démb lu doon wax taux de pourcentage bi dafa tuuti. ma lay fàttali ne. Mm. ci quarante six virgule soixante quatre pour cent. Mm. élection législative deux de participation bi mi ngi ci cinquante trois virgule soixante six pour cent. d'accord élection législative mm-hmm. de participation mi ngi ci trente six virgule soixante soixante taux de participation mi ngi ci trente quatre soixante quinze. Mhm. kon élection bi génn démb. Mhm. mënuñ ko jaawale ak élection présidentielle ci engouement. d'accord mënuñ ko jaawale ak élection présidentielle ci taux de euh, participation. Mhm. kon nit ñi démb génn nañ massivement mais wane nañ ne Pastef la ñu wóolu. bu ma ñëwee ci sa question aussi pour bañ a monopoliser débat bi. ñun yàgg nañ xam li ñuy xaar. yàgg xam li ñuy xaar. moo tax ñu ñëw proposer Sénégalais yi. un projet. projet boobu bi ñu yàlla joxee réew mi. ñu jël ko. tëggaat ko def ko li ñuy wax.

Mhm. kanu Touba ak Mbacké mu mhm. leen di jaajëfal ñoom noppi nañ ak président Diomaye noppi nañ ak président Sonko d'accord li leen waroon ci seen diggante président Diomaye ak Sonko lépp def nañ ko mhm. lu def nag mooy président Diomaye ak président Sonko nañu xool ci askan wi bëgg ñu xool fa ñu koy bëgg ñu koy def ñu koy def ci paj mi ci napp mi ci sàmm gi ci euh, courant bi ci dund gi ci assainissement bi lépp nañ ci taxawu askan wi ba askan wi ñu ñoom tamit gis nañ ne seen carte yi ñu doon sànni seen fal gi doon def defuñ ko ci zéro. loolu nag permettre na ma ma ne la. Uh-huh. ci référence seen boobu uh-huh. mu bokk ak Louga. Uh-huh. ñun ñoo li ñuy wax autoroute de l'eau loolu ñi ko xamul mooy dinañ fexe ba Touba am ndox mu neex nit ñu di ko naan mu potable moo xam ne suñu jigéen ñi bu ñu ëmbatee ñu ne ñu tere ndoxu xorom dañuy dem ubbi ci robinet bi rek mën a naan mais loolu doyul. nit ñi ndox moomu ñuy indi. dañ ko tuddee lu ñuy wax autoroute de l'eau nga xam ne dëkk yi ñu jaar yëpp tamit dañuy mën di bay noor di bay nawet béyul mais assainissement bi tamit dinañ mën a jël bassin de rétention yi ñu koy biire foofu noonu nit ñi mën a ndoxu ndaw mi ñu ñëw dañu hmm. yàqoot mën a am suñ ko conservé ba nit ñi di ko liggéeyee mais barki moom damay gis nañu ministre hmm. bi nga xam ne moom lañ dénk commerce bi ak ki ñu dénk forces armées ñu signé benn convention boo xam ne mois décembre bii moo la ñu def pause première tiers bi muy usine boo xam ne dañ ko def fii ci Touba Mbacké. Mhm. Euh, muy boo xam ne dafay def ay montage auto militaire. Mhm. nga xam ne cinquante mille personnes war nañ faa xëy liggéeyi. Mhm. kon jàpp naa ne mooy bàyyi nañ xel askanu population Touba tubaak macha allah waaye ñun nag ci soññi bi ñu leen soññi dañu leen bëgg mu pragmatique dañu bëgg loolu pragmatique. macha allah mu gaaw parce que ñun amatuñ lu ñuy xaar dañuy yónni yàkkamti ñu. d'accord population wàccoo nañ ak ñun aussi. très bien. jërëjëf Serigne euh, Abdou Saliou Diakhaté ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di yéen waa Mouhalim di rafetlu seen liggéey bu baax a baax <laughs> jërëjëf jërëjëf bi nekk ci plateforme yi gën a mag ci Sénégal. amiin amiin barke en tout cas kontaan nañ bu baax a baax révélation yi macha allah analyse bi euh, jaar na yoon donc euh, man ngeen def ni moom ngeen jokkoo ak euh, ñoon ci 77 227 89 79 ngir ngeen mën a def ni Serigne Abdou Saliou Diakhaté joxe seen ay xalaat euh, ci li nga xamante ne bi moom moo di euh, waxtaan wi ñu jëmee ci mbirum élection yeeg résultat yi ak yee ci aju Serigne Modou ñu dellu si waxtaan bi rapidement xam naa ne moom la ñu mayoon ci heure jana takk voilà li ci des moom moom moo di ñu nga continuer question boobu rek bu ko defee incha allah boo position bi eh, la jokkoo ak moom mais xam naa jàppandiwul. ah d'accord jàppandiwul. Ah, xam naa jàppandiwul am nañ fi am nañ fi cadre rek. incha allah incha allah incha allah ah, rabbi bu neexee ah, léegi léegi bàyyi la nga tàggatoo wala ñu. Euh, waaw question bu ñu woon. waaw moom mooy euh, maanaam mbirum actuellement président Ousmane Sonko. primature dem assemblée nationale. Hmm. waaw waaw dama ni euh, loolu loolu lu xaw a doy waar la maanaam tontu ci dafa jafe. Hmm. malheureusement Sonko kenn la. Mhm. mais su mënoo doon ñaar kon day doon ñaar kenn fu nekk mu nekk hmm. fa. la baaxee. d' accord. primature comme assemblée. Mhm. assemblée baax na fa ndax lan. Mhm. foofu xam nga il faut ñu tax dañoo war a taxaw cour de justice. Hmm. cour de justice ma fàttali mooy mën a topp. ñi nga xam ne ñooy euh, ministère yooyu noonu ñu jàppoon ci seen agrégation. loolu cour de justice rek moo ko mën. te cour de justice moom. Euh, président Ousmane ko bu fa nekkoon di actionné li nga xam ne moo di euh, action de l'État day baax. mais léegi foofu tamit euh, xam nga adduna dafa tëri mm-hmm. dafa doy waar. Mm-hmm. te Sonko tant que mi ngi nekk exécutif bi lu mën a xew Ousmane président Diomaye mooy mooy kilifaam. d' accord moo ko fa teg mën na ko faa jëlee. Mm-hmm. yal yàlla mosul leen ñu seetaane mosul ci réew mi ndax ñoom ñoor seen diwo seen seen DAUT rek baaxul. ndax loolu dafay indi réew mi rek problème moo ci am. mais xam nga seetaane dafa mën a yàq. te bi mu faloo bi ñu faloo léegi ñu bëri ñuy rox seen diggante aussi leen jëm yàq mhm. léegi ñu gis benn action bu ndaw sax gars jëm ko interpréter comme si ñaar dañu am problème mhm. léegi loolu pour éviter ko pour que Diomaye mën a doxal gouverneur ki jàmm te benn problème doom diggam ak moom mhm. le mieux moom mën nga naan da nga naan li gën kon sa su ko def assemblée nationale assemblée nationale moom bu la falee xasee fal li fal Diomaye moo la fal dan c'est euh, euh, euh, maanaam directement peuple bi ñu la fal te la fal. d'accord bu la xasee fal 5 ans sa 5 ans ko dindi. Mhm. foofu kon boo dee boo dee xool waaye nag foofu Ousmane Sonko ni nga ko xamee. Mhm. nga xam ne moom daanaka day bëgg di affiché wu. Mhm. di wax ak sénégalais yi. am discours. est-ce que tamit loolu dem foofa loola moo gën. benn ngoog ñaareelu itam mooy bu ñu baat ne président Diomaye sénégalais yi fal mais dañ koo fal ci barkeb Sonko. d'accord instant yii réew mi fii ak deux mille fii ak deux mille vingt président Diomaye lu def ci man def ci réew mi Ousmane Sonko am na ci responsabilité moom ci bopp day bokk ci ñuy rendre compte Sénégalais yi Sénégalais yi duñu ne Diomaye lañ fal de mais dañ naan Diomaye lañ fal mais Sonko mu ñu ko fal loo d'accord léegi Diomaye bu échoué Sonko kon tamit loolu mën na kay problème même ci loolu sax dañuy euh, gis président Diomaye euh, ñu bari dañuy wax naan maanaam dafay jël li nga xamante ni moo di ay euh, ay ay kii yu bëree bari maanaam

moo am meilleur premier ministre ci Sénégal nga xam ne nee moom man naa dem bitim réew am fa parce que pendant un mois su ko neexee te du tiit du jaaxle. ndax ku mel noonu di ko am du ko sàggane. muy dem ay ay prima muy dem muy dem. ay assemblée mm-hmm. te bu fekkente ne yow réew moo la ñor. Mm-hmm. kon fépp la baaxee. d'accord mais bu dee mais bu dee ci wàllum nag comme Ousmane Sonko ni muy dox yore réew mi ni mu koy saytoo nii. Mm-hmm. vraiment ci exécutif bi la gënee. d'accord mais exécutif bi. maanaam foofu salfaanoo ña salfaanoo xam ne mhm. communauté mal Sonko doo nga fa mën a nekk très bien moom moom rek moo mën a ndax tey jii soo ci place bi mhm. mais moom autorité bi mu am mhm. kattan gi mu am ni mu nekk en tant que premier ministre ñi ngi ko déggalee gars yi ni ñu ko déggalee ko joxee cër tey bu fekkoon ne jóge na fa dafay xaw a sori tuuti exécutif bi yenn yi du ko man dafay itam lee man sa kër ko mën yooyu ndax Ousmane Sonko ni mu taxawee di défendre Diomaye di ko taxaw di ko dimbali mhm. soo waaye est-ce que ndax boo xasee jiite assemblée yi danga commenté ndax dañ xam ci réew te sax ñoom dañuy tere cumul de fonction te dangay wax ji du bari donc mhm. nit sax mënta nekk ministre sax mënoo ko nekk député loolu moom mënta nekk mënta nekk député mhm. nekk ministre mais aussi boobu comme tey ji daal ci procès bi. Mhm. pour ëllëgam. Mhm. mu resté nekk premier ministre moo gën. Mhm. te jàpp naa lu ñu nit ñi lu ñu bëgg bëgg Ousmane Sonko. ragal naa Diomaye ko gën a bëgg ndax Diomaye xam na baax baax. Sonko ci wetam li ndax Ousmane Sonko wax na muy dëgg gis nga gaa ngi seen wax ji bari ji bari ji bari. bëgguñu lu may ñoom ñaar ñu def nii. très bien merci maanaam buñ defee nii. su ko defee nag. gaa yi mën a boroxu dugg comme li gars yi wax balaa balaa ñu balaa a am dara ci président Ousmane Sonko ci président ba pare ah, ah, doog mën a ñu koy tagg daa mhm. ko tànn kan oh, kan moo ko tànn président na ci àddina bett maa ngi bari hmm. président Sonko mi xool Diomaye hmm. tàngal ko jàng ko ci jikkoom mm-hmm. ak taxawaay mu andi ko mm-hmm. bi mu ñëwee nit ñi doo xam ay qualité su ma déggee ay nit ñaan jomaay moom ku baax la dama gis nga képp kuy tàgg jomaay di xas Sonko kooku waxul dëgg ginaar ndax mënee suula wax bëgg ginaar bañu nenam mënee suula wax baaxu jomaay di bàyyi wax Sonko wallaay jomaay kan moo ko mm-hmm. kan moo tax ñu xam jomaay Sonko <laughs> kon koo dégg mu naan <laughs> jomaay ku baax la ku yaru la ku bëgg réew mi la mais Sonko nangam kooka la muy wax bu dëgg jërëjëf suñu loolu kooku wax dëgg kon li am soo mooy uh-huh. vidéo yëpp la waaye daal gis naa ne. Mhm. man pour man. Mhm. malgré mu nekk ci exécutif bi. d'accord ay risque am na ci. Mhm. ndax seetaan daa bëri doole. waaye ñaan yaakaar nañ ne seen diggante loolu mën na caa bañ a ndax ku dégg na jëmaay waxee ak nu ñu mais euh, gis naa ne foofu moo gën. waaw bu fekkente nag pour na conserver te Ousmane Sonko sax du ñooñu pour essayer maam nekk ci nguur <laughs> Sonko bu doon koy ko maanaam loolu sax man mën naa di débat bi Sonko bu doon xalaat ñu koy dàq yooyu noonu. kon du jox Sonko jox protocole Baye Sougou bi su waay di wax Bougane <laughs> wax mën naa protocole Baye kon daa saful. day mais bu ko la kon bi ñëw toog ci réew mi dil mais Sonko la fekk mën a bàyyi indi jumaay mais gën a xam ne kon moom nekk si exécutif beeg yooyu noonu vraiment loolu ma mooy. Mhm. yàlla suñu borom defal leen jàmm. Mhm. ndax ñoom ñaar sénégalais yëpp ñoo mhm. leen war a ñaanal jàmm. xam nga tax ma wax. allah jàmm mi Ousmane Sonko. mooy jàmmi réew mi. macha allah jàmmi président Diomaye. Mhm. mooy jàmmi réew ndax ñoom ñaar. Mhm. képp kuy souhaité ñu teqali koo bëggoo Sénégal. macha allah. Euh, politiciens yi nag nga xam ne ñoom. Mhm. dund ci kaw ndóol Sénégal yi. dund ci ñoom loolu moom ñoom ñoo souhaité ñu teqali ko. pour que ñu mën a buruxlu. mais ku mel ne man. xam ne bu ñu gën a yaaru jaare Sénégal rek muy ñoom ak ñeneen. njortu naa ne nguur mën a ñaan lenn luy niroog teqali ko. ci nguur gi euh, maanaam ñoom ñaar ñi ngi tàqale ko macha allah ànd te itam wax ci dolli parce que na ay profil ne mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. euh, naa mais mi Guy Marius askan wi ndax moom tamit mi ngoog mais am na ñeneen ñi fi nekk ñoo xam mën nañ fa nekk soxna may mën a buusa ku fi del la ku engagé la sonn na loolu pour Pastef depuis 2021 boobu mi ngi fii kon mi ngoog xam naa temps bi jeex na bëggoon naa aussi bëggoon naa aussi mu gën a mu gën a mu gën a yaatu ah, waaye voilà ah, sur mais mais mais du weesu incha allah xam naa man bëgg naa sax benn benn